nit ku ñuul ba ngeen di ko ndax tubaab yi dañ ñu ni woon xeetu jaam lanu kenn du nu naw doomi ma buso dara jaar sëñ Bamba sëñ Tuubaa yow yaa ku ñuul ba ngeen di ko naw ndax tubaab yi ndax tubaab yi dañu ne woon xeetu jaam lanu kenn du nu naw ndax tubaab yi jàppe nu ay esclave dëkkey toroxal boobee ba tey ni ñu ñuul ñee di leen teral Ahmadu borom jaam ñi Cheikhul Khadim ama jeysasin ama jeysasin ama jeysasin ama jeysasin ama jeysasin dañu jël seen sëriñ bi jàppe ko nit ba demee ci géej ga semal tubaab yi xam ne du nit ku sopp Sëriñ Tuubaa defal li ñu màggal daam borom gabon Ahmadu borom jaam ñi Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim Ahmadu borom jaam ñi Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim borom tukki bu sori bi ci sëriñ bu baawaan